asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaare di leen ñaanal jàmm bu baax te di ko sàkku ci yéen e, tey nag bu ngeen gisee fi ñu taxaw xam ne ñu ngi ci e, weeru koor e, nekk ci guddi gu màgg tey waa association bu ñuy wax waa VIP famille organisé guddi sant Seydouna Mouhamed alayhi salaatu wa salaam ñu indi ko fii nag ci si Cap Mbao ci terrain basket bi euh, tabarkàlla sànq dégg ngeen sunu mbokku tijaan yi li nga xamante ni si euh, def nañ ko ci bis bi euh, mu nekk bis boo xamante ni ñëpp a ko bokk. képp kuy wax asadu an laa ilaha illallah wa asadu anna muhammad rasulullah yaa ngi ci biir ba tax na dégg ngeen léegi sunu mbokku tijaan yi li nga xamante ni moom la ñu def léegi ci bis bi. ngeen dégg kooku di jàng noonu di waa kër Serigne Bamba di alaaji Moussa Fall e, tabarkàlla muy yëkkati xasida noonu e, ngeen xam ne kon guddi gi ñëpp ngi ci biir donc ku ci ñëw rek tabarkàlla di nga ci gis sa bopp e, association bi nit ñu del ñaanal ñu yàgg koo def yàgg koo teewe ndax li yombul tey association yi tey ku ci taxaw rek yaa nga tëgg ay soirée rek yu mel noonu ñoom bu ñu ñëwee yàlla suñ borom xiir leen ci organiser guddi gi yonent bi alayhi salaatu donc loolu dañu ciy kontaan bu baax di leen ñaanal yàlla yàlla euh, yàggal leen ci li nga xamante ni moom la ñuy def euh, euh, duñ ciy sori nag dañuy dugg ci biir xool ñi nga xamante ni tabarkaala ñooy invité yi waxtaan ak ñoom ci li leen indi ci bis bi nga xamante ni bis boo xamante ni la ñëpp a ngi ci biir kon dañuy dem ci biir rek xool ñi nga xamante ni ñu ngi ci biir fas yéene waxtaan ak ñoom kon alaajuloo sama caméraman ñu ànd dem xool ñi nga xamante ni ñu ngi ci biir. بسنة الله العشق والباء تلف الدور وانفي الوباء والبلايا كلها عنها وتيسر بها واكلها شربها لله جابر كسرتي لا إله إلا لا وقري باب الخير يا رب لم يثير بلا إله إلا لا إذاك صرفنا نحو بابك وجهتي رب الله مؤمنون léegi jamono loolu yooyu ngay wàcce sa kàddu wi sun Touba da dug ci baas bi ki dug ci baas bi wi sun Touba pie gi ki bogo ko na muy dem ya yaa ge sun Touba ge do deug la si mustafa ni ba koy xam. boobu yàgg na dama ne boo nekkee ci yàlla kenn doo xam waaye bu suñu boobu boobu tu ko nekk ci yow ñëppay daw sugu ci yow ndax su boobaa da nga yow ñëwee la jàng jëmm ji kenn la bàkki moom Tuubaa mag di mu doon loog kenn musu koo fekk ci jotaay boo xam ne dañ naan si Moustapha way maanaam fi mu toog kenn way ko fi fekk mu doon nit ku baax nit ku bëgg bu baax bëgg sëñ kon sëñ bi ñoo ngay saa baax te di jox sa wàccuwaay di am mbégte lool wax dëgg yàlla sunu xol sedd na yow nag foo teew moo gën foo teewu tàkke bam Tuubaa ndax foo tawee maanaam ku jàkkoog yéen aajoom day faju loolu yàlla dogal ba àdduna di baax nag picc moo daan fekk toog waaye toog moom su wóobitu koo ñëw fekk picc da koo bëgg a dimbali li ma bëgg a wax foofu mooy yéen da ngeen a waroon toog rek ñun ñuy départé wu maanaam di ñëw ci yéen ngeen di fàcc ñoo aajo. waxlul uqdatan min lisaani laa tudd tey na dama fee ñëw teewal fi tey dama fee ñëw teewal fi VIP family ndax mën naa ni seen tur laay waxe dañoo jël initiative bu rafet def ko si mois ramadan bi ndax ñoom dañoo nekk ay jeunes yoo xam ne au moins dañoo rassemblé wu def benn ngont Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ni moo tax ñu sàkkuñu dinaa ko souligner tey day point bu am loo loo xam ne ni point bu am solo la mais nag day am solo moo wax suur bi au moins ñi nga xam ne nii nii dañ cee participer comme étant sponsor maa ngi cité Serigne Saliou Couture ak Jama Couture ak Taïf Bass mais aussi day am solo ma lim ki nga xam ni mooy Serigne Moustapha Ndiaye Al Karim mi nga xam ne nii moom lañ ko parrainé parrainé d'honneur te dinaa mettre accent bi ma koy nuyu au dafa def loo xam ne nii jeunes yi même mi nga xam ne nii suñu parents yi dañ koy rafetlu day bàyyi yitteem yëpp mu nekk un tradipraticien di faj nit ñi te boo demee ci moom mën naa ni loo ko laaj lu mu la laaj sax d'ailleurs da ngay wàcc prix bi te tey. da koy rafetlu de telle sorte que maanaam loo am rek dina ko def ngir yàlla te nag suñ borom bi nga xam ne moo am fay yàlla na la fay ci daraje Muhammadu Rasulillah te dinañ ko rafetlu ndax ñii nga xam ne yooyu ñooy VIP famille def nañ loo xam ne nii rarement ngay gis ay jeunes ñu rassemblé def ko ndax jeunesse dafa nekk lu doy waar jeunesse dafay yéeme yi nga gis fii yëpp seen préoccupation xam nga lan la def lu la neex dem soirée jën ngootu ji ne jox ko Seydina Muhammad te mi nga xam ne ni lépp loo xam ne nii nii existe na ci Seydina Muhammad la existé Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu mi ngay wax wa innahu is arada allahu nashatana abana min nuurihi nuuran nabi adam muy lu rafet mbokkam ba xaritam ba soppeem ga muy Cheikh Ahmadou Bamba Xadimu Rasul na wahab lana alxirsa ala tahaati wa kuffana alkasala fi l awqaati yàlla octroie-nous le désir immodéré de pratiquer les devoirs religieux écarte-nous de la presse aux heures de dévotion naan yàlla yàlla nga ñu may ab xër ci devoir religieux yi devoir religieux mooy lii ñuy def muy ngont Seydina Muhammad ndax nga xam ne boo amul xër doo ko def boo taayee ne mën ngaa toog sa mu ne may na ci xel te buñ koy def yàlla nañu fakkat ab taayal taayal lu bon la yàlla na ci yàlla musal may limaale tamit waa groupe no stress muy invité d'honneur no stress initiative bu rafet la yàlla nañu yàlla wote di ko ci stress ndax doxul te tamit ñuy encouragé jeunes yi nga xam ne ni au moins dañ fee ñëw teew fi dajale seen i alal bàyyi seen yitte wo seni xarit seni mbokk ku ngeen am woko ko ngeen dajee ngir sant yonnati bi alayhi salatu wassalam lolou war na julit kon bu ngeen ko defé dafa ngeen ko ñëpp waye nak jota yu mel ni nak day mat di bayyi xel lol ndax du yi fo du yi caaxaan du yit am temps rek tax nga deug sa yitte ñew tok bu ngeen ci teewee yéen ko bàyyi xel te xam ne àdduna dara amu fi njariñ lu dul jaamu suñu borom lu fi nit def ci àdduna lu dul loolu bu dee dana ko rëcc ndax nag genn kàddu rek laa am ku fekkee sama jataay loolu rek ngay dégg ma di ko wax ndax yéena ma yéena ma wax ne ab sëriñ laa ab sëriñ nag na ko sëriñ Sonal bu mbakki waxee woon rek lenn rek dox digganteem ak taalibe yi mooy talibe yi ay weñ lan tiim sawara sëriñ si yor ay wantaay wala ay uppukaay di ëpp sawara yi ëpp weñ yi ngir ñu bañ ñu tàbb ci sawara bi waaye weñ wut fexe ba tàbbal sa bopp ci biir sawara wu nag kenn mënta kay sawara lakkale ku dul sa borom bi la bind sëriñ Tuubaa wax ni almuridullahi yoon wi jëm ci sunu borom kon kooku aw yoon la woote ni ñëw leen ñu dem ci seen borom ki jëm ci ab dëkk nak te xamul yoon wa ca jëm mu gis ko tege ca yoon wa ne ko mu ne ko ñëwal ñu dem mu yobale la bu ngeen ande ta ta te tawu leen a dëkk taw ngeen ta depp faawu da ngeen egg ci dëkk bi ngeen jëm loolu rek moo tax diggante ab sëriñ ak talibé waaye sëriñ chan bi daana wax naan du kenn la ne yanu jël tàbbali bi daal jëno jëno moom yàllaa ko moom ba mu koy sakku kenn dimbalewu kon nañ ko gën a bàyyi xel bu baax a baax a baax jataay jataay lislaam yi nag day bëgg a soppeeku léegi du mhm. dëgg rek neex yàlla ndax jataay yoo xamante ni nii dañ fay ja tudd yàlla di fa tudd yonante bi sallallahu alayhi wasallam di fa tudd gaay yu baax yépp jigéen ñi buñ dee ñëw duñ musóoru góor ñi jigéen ñi jàkkaarloo di xoolante na leen neex loolu ay caaxaan la bu dëgg rek neex yàlla te yonante bi alayhi salaatu salaam dafa waxoon ne fépp fu ñu koy tuddee moo gaayam yooyee ba ba ñu dakkal malaaka yi duñ të di leen wàcceel yërmande ba ba ñu bàyyi te bokk na ci malaaka li koy rey mooy awraw jigéen te jigéen de léppam awra la dem des xaar kanamam ak cigg jaram jëm ay cati baaraamam ak ay bëti tànkam te seen wa jëm ca baaraam yu ndaw ya lu dul loolu ci moom rek borom këram moom ko war a gis ku dul borom këram waroo koo gis sa ndey ak sa baay sax waruñu ko gis ginnaaw boo mos kàllafee buñ dee ñëw nag ci jataay yii ñi ne dañ cee war a defaroo di fi jële ay bakkaar jërutul taxawal bu dëgg rek neexe jataay yi moom da ko def ngir defaru ca nga di fa ñëw di fa jële bakkaar daanaka jot a taxawal kon moog li nguur ci doon wax léegi naan ay sabar ak musique ñooy daal di yem kon ndax bu dee na yow mii dem ci jàng ya xàmmewuñ la ak ka jëm ci misik ba mat naa xoolaat lool nit ñi nañ gën a ragalaat yàlla te bàyyi suñu caaxaan yii te xam ne am na yoo xamante bi ni nii sëriñ si leen koy wax da di nax rek barki alquranul karim ku jaamuwut yàlla boo dee sawar nga jëm yàlla moom ajjana te daa wax ne nii moo fay tax nit dafa dem bind sawara te ñi dëkk mooy ko rek ñoo fa jëm te am na loo xam ne mooy yàlla képp la nag duñ naxante dañuy waxante dëgg rek te yàlla tax ndax bu fekkee dañuy toog ci jataay yu mel nii ñu yuuxaloo tàccu jàng di jàng ñu génn suñu addee jox leen amut kenn ku soñ niñ ci seen borom ñu jóge fa kenn ku ne delluwaat ci la la neexul ñoo ko wax de jot a woote waaye am na ñi am na ci ñoñ ñoo xam ni buñ la dégloo boo ñibbee sa lépp lefam te it kàddu yi nga fi wax firndeel na loolu bala may jàng yéen jànkat yi ak ñi yor microcentral yi maa ngi leen di ñaan ku ci demati ci tànt booy wax nit ñi di wax bul wax kenn déglul xam nga lu ay rajo biñ ko xalsetee takk téeméeri nit nekk ci tànt ñu ne nañ jox sëriñ Moustapha Al Karim mu waxtaanal nu suñu diine loolu mooy juróom déglu leen bu ñu demee nag ba naan ba toppaat ci naan déglu leen déedéet ki ñuy déglu moo war a déglu moom man sama man loolu mooy sama philosophe su may wax nit ñi di wax damay jàpp ni man mi war a man mi wax maa leen neexul may déglu te ku bare fulla gis na marchandise mi ma yor mooy Seydina Muhammad duma ko jaay détail duma ko leble man prix en lay laay jaay ku ma man ku man jënd ma jaay la ku mënta jënd am na ñeneen ñu ko soxla ndax ki ñëpp soxla fi mu nii te kenn du ko gàntal muy yonent bi moo tax maa ngi leen koy ñaan rek bu leen waxati kenn déglul bi ci des it mooy ku tàmbalee bu neexee ñëpp déglu. dëgg la sëñ Moustapha bi mu tàmbalee wax bi sëñ micro central baal ma noo tudd. sëñ Ibrahima bi mu tàmbalee wax am na ko doon xàqataay bi sëñ Moustapha day wax nee na mm. ndax Sénégal. ma mi ñu xamul fu ñu koy jaar mooy dee boo koy tudd ñu noppi nit ñi dee lañ ragal bu ma musaana dem ànd ak sëriñ bi suy wax nit ñi di wax damay jël micro bi daan ñu yonent bi nee na <laughs> bokk na ci bu ñuy tagg yonent bi wala ñuy waxtaane yàlla ku fay wax lu bokkul ak loolu booy dee doo wax sa soxla ni teg sëriñ bi trois secondes laa la may ñepp dañ nan selaw nit ñi dé lañ ragal nit ñi mom dé lañ ragal bi ci des it sëñ Ibrahima wax na itam ni sank ni ñi wara wax ño waxatul anka ñi wara wax ñi ngi wax ñi wara déglu ño kaste seeni nopp waye ñi wara wax ñi ngi wax ñi wara wax nak ñi ngi wax ñi wara déglu li ñu kasté seen nopp moy dañoo am soxna goor ni dañ ci am dañoo am dañoo am ku ci am aawo am nga ñaareel jigéen ñi ku ci am jëkkër am nga keneen xam nga lan la du ngeen ma laaj góor góor gu ci am soxna sa ñaareel mooy whatsapp naka noonu jigéen ñi ku ci nekk ci tànt yaa ngi snap sa sañse mm. snap sa sañse ni nit ñi ñu déglu yàlla c'est parce que da ngay wone sañ sé wone sañ sé ak yalla mënu ñu and da ngay déglu yalla wala nga wone sañ sé bi muhammadin wa bi bintihi wa bi baliya muhammadu lamin muhammadu lamin muhammadu lamin muhammadu lamin ah.

بمحمد وببنته وببالها يا رسول الله وابنيهم ستين آه لا من هدى وصحبه والتابعين لهم فهم ساداتنا أهل المكارم والندى فرج سقام في واكشف كربواء أنا ما بقي يا

فرج هموم المسلمين وقرب يا خير من مد الوساط له اليدان إنما مثل صفاتك للناس السماء مثل النجوم والماء إنما مثل الصفات للناس سكما مثل النجوم أوفياء يا سماء يا سماء ما طاول السماء لم يساوك سولا وقد حا لسنا منك دونهم وسماء سلام قدو انكم وسلامكم بھائی بکسر بھائی Raka وكل بيت وإن حرم بديع بها جدود غير خلق العالم يا نساء يا جمال محمد رسول الله محمد رسول الله إيه عين النعيم النعيم عين رؤيته يوم تغابني تكفي سكت الخدم الماكا يا الانسان بجنانه yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay jëkk farat sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sayyiduna Muhammad rasulullah Muhammad rasulullah النبي صلى الله عليه يا رسول الله والصوام من الجمال سيدنا محمد جبرنا حسين وخرنا ويا الليل أتى وصل كريمي لا أبي كلمي وقولا خالص الكرم Yeah. comme ni ngeen ko gisee booba léegi waa VIP family organisé guddi Seydouna Mouhamed sallallahu alayhi wa salaam eh, gis ngeen nag ni guddi gi demee depuis boobu ba léegi ndeysaan berndey macha allah te depuis lors jànkat yi gis ngeen ko sunu mbokku tiijaan yi jaar nañ fii euh, ku mel ni Serigne Sambou def fi lu am solo macha allah gis ngeen tamit ki nga xamante ni moo di Serigne Fallou Seck ànd ak groupe bu mag bi moom it taaral bis bi ba mu taaru macha allah tey nag ñu ñëwaat àndaat ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko organisé woon euh, président bi nekk sama ndeyjoor ki nga xamante ni mooy euh, ki nga xam moo yor organisation bi ànd ak seen jigéen soxna Diarra ak maam Cheikh donc ñu war a waxtaan si li nga xamante ni moo sabab bis di ak li nga xamante ni moo sabab euh, association bi euh, président maa ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay. yaa ngi ci jàmm bu baax. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax ak maam Cheikh Mbaye. waaw ñu ngi lay fay Bamba di la jox sa wàccuwaay bu baax. kon mm-hmm. di rafetlu invitation bi nga def ak waa VIP. Mm-hmm. waa VIP ay xale la ñoo xam dañoo jukk pour liggéey. Mm-hmm. waaw ñu ngi ñu ngi sas 2015. Euh, ba léegi kon yàgg na. bëgg nag loo xam ne carrément pour liggéey pour suqali suñ gox moo ñu tax a jug waaw VIP daal mu ngi noonu di VIP ñëpp. Mm-hmm. waaw d' accord xam naa bu ñu ñëwee léegi ci kanam dinañ ci yaatal soxna Diarra ginnaaw bi ma la nuyoo nga nuyoo ko ñu lay seetaan. waaw maa ngi nuyu lay seetaan ñëpp ak waa VIP family mm-hmm. maa nuyu bu baax. Mm-hmm. Cheikh maam Cheikh. waaw di leen déggee di leen seeral di leen nuyu bu baax a baax euh, waa VIP famille bi moom dama leen sant leen gërëm parce que ay jàmbaar lañ vraiment. Mhm. parce que nga organiser mu sotti. Mhm. jàmbaar rek ko koy def ak ku yàlla jàppale. te vraiment dip bañ euh, sosoo ba léegi am na quatre ans te lépp luñ sumb ñu ngi koy vraiment dama leen sant di leen gërëm. di la wax ne dañuy doog door ko mais ko am na yeneen yoo xam ne mi sunu kanam te bëgg nañ ci dugg incha allah. rabbi comme ni ngeen ko gisee mooy waa VIP family organisé woon guddik Seydouna Mouhamed alayhi salaam mais président li may njëkk a laaj mooy est que VIP family da ngeen koo décentralisé wala ci benn secteur la yem. non non VIP family dañ ko décentralisé waaw parce que képp koo xamante ne rek euh, pare nga pour jàppale. Mhm. ñun waxuñu rek ne dañ koy yemale si VIP wala dañ ko yemale Thiaroye Azur waaw képp koo xamante ne rek. yow pare nga pour jàppale sa gox rek yow yaa ngi ci biir parce que yemale wuñ ko VIP yemale wuñ ko caaree Azur rek parce que souvent da ngay gis ku dëkk Colobane kii dëkk Thiès kii dëkk Mbour te ñu ñëpp te am na tour yoo xam ne ñu ngi koy faral di def chaque un mois waaw. mais objectif bi lan la lan moo tax a jóg VIP family. waa objectif bi mag euh, mooy ñun dañoo ñëw pour jàppale bépp doomu aadama boo xamante ne sa loxo jotul sa ginnaaw. waaw ndax am na ay aide yu bëri yoo xam ne dañ koy def di ko jox ñi nga xam ne ay néew bi doole lañ waaw ak yeneen yoo xamante ne aussi dañ koy jàppale ay nit ñoo xamante ne dañuy am ay problème ak yeneen ak yeneen. maanaam daal su ma déggee VIP famille ci wàllu social lay dox. mais maam Cheikh est-ce que euh, organisation boobu lu jëm ci wàllu sociale ku nekk soxla ndimbal. Ah, mhm. ngeen war a organiser ba ku nekk mën ci am wàllam est-ce que loolu metti na wala méttiwul. waaw xam nga door moo nekk loo xam ne te dañuy doon nekk ay xale waaw ñu ngi sant yàlla bu baax la ndax am na ñu ñoo xam ne carrément ñu ngi jàppale bu baax a baax ku mel ni suñu Moustapha Ndiaye ak Karim ci dugal loxoom bu baax a baax ku mel ni suñu Saliou Couture tamit waxi na ko tamit ku mel ni Jamaa Couture bi ñuy expliqué leen ñoom tamit dañuy see def seen doole bu baax a baax baax baax xam ni kanam ñun comme ay ndaw ngeen te yéen gis bi ñu tamit ñu ay ndaw dañ ci jàpp baax ku mel ni tam Fallou dëkk si Kaap moom tamit noonu si def ba suñu bis bi jàll euh, bu jàllee daal ñoom seen loxo ñu ngi ci biir mett na nag trop waaye nag euh, sant rek. sant ndax lépp loo gis door gi moo ëpp solo. la waaw ndax biñ ci commencé séntu woon ci woon bi mhm. mais yàlla suñu borom dem na ba sottal lépp. waaw di moom du waat leneen nag ndax leneen li ñuy jublu mooy dàq mooy dàq incha allah rabbi soxna jaara moom mu teewal fii suñu mbokku jigéen ñi soxna jaara ngeen nekk ay jigéen nekk ci biir euh, groupe bi naka ngeen di ànd ak euh, góor ñi ci wàllu liggéey bi ñu ngi koy ànd ak ñoom daal topp seen ginnaaw rek. Mm-hmm. li ñu wax rek ñu def. ku mm-hmm. ñu tere ñu bàyyi. Mm-hmm. mais liggéey bi ci biir euh, ci côté jigéen ñi lan la ciy doon maanaam jigéen ñoom ci ban wàll la ñuy gën a occupé ci biir euh, VIP famille yi. comme wàll euh, ñoom daal lépp la ñuy occupé. Mm-hmm. dañuy occupé lépp. Mm-hmm. maanaam daal dañuy toog ci ginnaaw góor ñi. ñu def rek ñu ànd ci ak ñoom ndeysaan maam Cheikh euh, yaakaar naa VIP family am na 4 ans ci ci ren. ànd góor ak jigéen est-ce que des fois doo am ay wéeru jàppal bàyyi fii wala du genre. waaw loolu mënut a ñàkk mënut a ñàkk mais vraiment jigéen ñi nekk na ay jigéen yoo xam te neex nañoo waxal quoi. Mm-hmm. parce que jigéen bu neexee wax rek neex àndal. li metti mooy ngay ànd ak jigéen ñoo xam da ngay wax jëm fii mu wax jëm fële. mais ñi neex nañ te nekk nañ jigéen ñoo xam te neex nañu àndal daal. Mm-hmm. te booy àndal da ngay sawar parce que loo leen wax dinañ ko def. Mm-hmm. te macha allah ñooñu moom la fi cat quoi vraiment. macha ba tey euh, ngeen taxawaloon guddi Seydina Mohamed alayhi salaatu wasalaam. donc lan nan na leen idée bi dikkee da ngeen nekk ci weeru koor rek gis ñëpp di ko def ngeen def ko ou bien lu ngeen yàggoon a waajal la avant weeru koor gi di ñëw. waaw ñun nag euh, dañu yàgg am objectif boobu ndax euh, affaire bi ñun dañ ko yemale si lépp loo xamante ne euh, ñun lu ñuy jëmale kanam rek ñun ñoo ngi si rawatina nag si euh, weer wi ñu nekk waaw di weer bu tedd waaw kon nag ñun foog ñu gis si suñ foog ñu wane suñu bopp waaw parce que dañuy yàgg reewee euh, taxawal lu toll nii waaw te ñu ngi ñaan yàlla nag at bu jot ñu koy taxawal bu soobee yàlla. mais nañ ko def mais est-ce que ci weeru koor bi rek la programme yi dem ou bien am na yeneen kii yu ngeen di waajal. waaw am na yeneen programme yi ñuy waajal parce que da démb ñu ngi doon réunion parce que am na yeneen programme yoo am na ñu ngi sañu kanam bëgg nañ ko taxawal bu soobee yàlla. Mhm. ba tey euh, maam Cheikh gis nga jàng yi keroog ni mu demee macha allah yàlla dogal na ni am na réussite. Mhm. Ah, euh, tijaan yi gis nañ seen bokk suñu mbokk murit yi gis nañ ci seen bopp ak euh, organisation bi ni mu demee macha allah yaakaar naa waroon yombul daal. waaw yombul ndax xam nga du bokk moo demee bi ba ñëpp ngi ci biir musulman baa ngi ci biir chrétien baa ngi ci biir layen bi xaadir bi ñëpp ngi ci biir moo tax bu ñu waxee waxuñu benn ñu ni waa guddi seen na moom xam nga guddi seen na moom moom ñëpp moom bàyyiwul kenn moo tax bi ñu ko wootee ñu ni kat carrément duñu wax jànkat bi kese ci la ñuy yem ñu jël comme carrément ñi nga xam ne carrément ah ñëpp musulman ndax comme ku mel ni Sëñ Fallou Seck day tëgg tabala te tabala baaxoon na ci xaadir baaxoon nañ ci murit bi tijaan ci layen bi sax moom mën na cee dégg ndax que mën nañoo dugal wayam ci biir mm. moo tax bi ñu kiiwee ñu ne nañ nañ tànn ku mën Fally nag mm. def ci lu yaatoo yaatu ndax dëgg yàlla bu ñu ba am connaissance dañu ne ko tey fi baas sëñ la ndax moo woote def lépp tey fi bi ñëwee ñu ne ah Fally Seck wax ci yéen doy nañu kon baas bi jox nañ leen mm. lépp ñoo leen ko defal tamit ku mel ne tam tamit jàpp ci jox leen bâche ak chaise xam ne carrément bi ñu def suñuy ndogu tamit méttiwul ku mel ne tam sàmm boobu gis nga ko juróom xam na lool waaye dañi ay ndaw bu jubloo ci dara man dama ci fekk si ñëw def délégation bu baax ñëw jàng ko bañ koy gis sax mu ni yéen maa ngi seen ginnaaw ba heure bu ngeen ma wooyee ñëw naa organisation daal xam nga bu ñëpp nekkee sa ginnaaw xam nga bu doon groupe dañ maa bàyyi ak sama bopp rek nga métti mais ñëpp nekk sama ginnaaw lu su ma nee maam Cheikh nii sax nga gis kenn dafa dëkkante ñu ma maam Cheikh bàyyi li ma waxee def xam nga loolu waaw comme ñi la doole rek euh, ñoo noonu. dëgg yàlla may sant waa VIP nag amuñu moroom. dëgg la mm-hmm. maag soxna yi. dëgg la VIP famille amuñu moroom soxna yeeg euh, góor yàlla yi ñëpp ci biir waaye euh, maam Cheikh ba tey VIP famille ci biir 4 yi ma waxoon léegi rek instant bii nii comme weesu nañ guddi Seydina Mohamed alayhi salaam léegi koor gi jeex. Mm-hmm. donc lan ngeen di préparé waat ci biir kii bi après koor bi. après koor bi waaw événement yi bëri na quoi parce que instant ñi ngi waxtaan a mën a ba kenn ku ci ne gis sa bopp quoi. parce que dañ mm-hmm. fee nekk pour ñëpp. nekkuñu pour VIP parce que dañ fee nekk pour ñëpp xam nga fi tamit di jàppale jeunes yi parce que lii groupe WhatsApp la. te groupe WhatsApp buy organiser genre yi mën naa ni boo ko gisee doo bariwul xam nga mën parce que WhatsApp dafa am ñu bëri ñoo xam ne WhatsApp dañ koy jàpp affaire de foofu caaxaan te WhatsApp ñun dañuy wane ni WhatsApp léegi dafa dépassé foofu. Mm-hmm. mën na organiser di gindi ndaw ñu bari parce que da toog sa téléphone wéet. di man nga tase waat wala won neex mais fi groupe bi wu noonu groupe bi dafa am dañuy doxé di jappalé ndaw ñi di leen gindi bu baax baax di leen tek ci yoon parce que groupe bu dem ba organiser ay guddi yeneen ti beeg ak yenen ak yenen yenen ak yenen man na ni c'est la première fois man ma gis ko ma xam nga lolu loolu dañ ci sante yalla bu baax baax parce que suñu borom xir nañ ci te yoonu ba yoonu ki euh, yoonu yoonu jëm ci waaw wala mm. ci lañ ci lañ taxaw quoi mm. te soxlañ nañ ay jappalé xam nga bu baax a baax parce que ay ndaw jóg jóg uti yoon bu baax. foog ñu ut ñu ne seen ginnaaw pour jàppale leen pour ñu gën a mën a dem. di ci woo ñëpp nag kenn di ci woo ñëpp ki ci gis sa bopp rek ngi lay wax ñoom jàpp ci bi bu noonu mu nekk waa VIP family comme ni ngeen ko gisee sànq organisé guddik Seydouna Mohamed guddi goo xamante ni macha allah gis ngeen li ci jotoon la xew lépp tabarkàlla ba tey prési am na ñoo xamante ni ñu ngi toog ci seen biir kër di dégg VIP family bëgg a bokk ci VIP family eh, te xamuñu naka la ñuy def ba bokk ci eh, biir VIP family waaw bokk ci VIP family nag eh, yomb na yombul parce que du groupe bo xamantene da ngay ñëw rek dug waaw dafa am foy jaar waaw parce que dañu def euh, groupe ak bureau bala ñu lay duggal si groupe bi dañ lay njëkk a ci si bureau bi waaw parce que dafa am ay argument yo xamni yoy lañu tek ok à part groupe bi dafa am benen bureau bo xamni bu groupe wala foofu moy bureau VIP. ok waaw bala ñu lay duggal si groupe bi fofu lañ lay njëkk a mhm. waaw ñu tegal la charte yi nga xamanteni ñun mom lañuy doxé waaw. su fekkee ne nangu nga ko nag ñu dugal la ci group bi. muy lu am solo. waaw su fekkee ne nanguwoo sart yooyu doo egg si groupe bi. dañuy génneewaat. Mm-hmm. waaw parce que groupe bi aussi dafa am nu muy doxee bugguñu euh, nit kuy ñëw di koy yàq. Mm-hmm. waaw parce que whatsapp moom ñu bëri tey buñ la gisee ngay whatsapp rek am na fu ñuy xalaatee te ñun yàlla suturaal nañu ba jëmuñu yoon boobu ñu tey suñu groupe boo ci duggee. boo nee tag dugg rek di nga xam ne ñii ci programme la ñuy dox waaw chaque jour ak li ñuy waxtaanee waaw te bañ nañ ko ba am na melokaan yoo xamante ne sax du ñu namu ñu koy dugal ci biir kër gi. waaw loolu yëpp dañ ko fay tere. moo tax balaa ñu la koy dafa am organisation ci biir amul ay ruubeeg. ay yenn foto yeeg wala yenn mm. waxtaan yeeg. du genre voilà yooyu moom amu fa moom. Mm-hmm. ak dëgg loolu moom amu fa. mais ba tey loolu tamit ku ci am na ñoo xamante ni bëgg nañu bokk ndax. Euh, ku nekk rek eh, comme ni nga expliqué léegi bala ngaa xam foog nga ñëw ba ci biir bureau eh, VIP famille soo ko comprendre mais am na ñoo xamante ni bëgg nañu bokk ci VIP famille te xamuñu ban yoon la ñu jaar boo leen ko doon wax tey lan nga leen di wax waaw foofu nag ah, ku fa bëgg a dugg nag ah, mën nga jaar sax si Elvision ok waaw mën nga jaar sax si Elvision mooy yoon bi gën a gaaw waaw mooy yoon bi gën a gaaw mm-hmm. ndax eh, ñoom it keroog gis nañ suñ bokk bu baax keroog li ñu defal mm-hmm. waaw ndax loolu aussi yombul ñëwoon nañ taaral bés bi macha allah mm-hmm. taxawuñu ba heure bi jeexee ñu daw weddi demaat kon loolu tamit mën nga jaar foofu tamit bu la neex ndax ñoom ñu ñun ñoom mën naa ni benn la rek léegi. benn la rek. sotti ci ak def si la mooy Elvision Média di télé bi nga xamante ni macha allah ñëpp la fi nekkal euh, muy Tijaan be xaadir yi ba ci euh, bépp tarixa bu nekk ci àdduna wërngal këpp rek Elvision Média ñoom la fi nekkal. kon nag yaakaar naa li ñu cërale woon ci waxtu mu ngi euh, waaj a jeex maam Cheikh lan mooy doon kàddu gu ñu ma am na loo loo loo bëggoon waxtaan laaj ñu la Mhm. tamit am na comme règlement yi wax ci bureau bi daf ah, ci ci groupe bi am na ci. Mhm. <clears throat> na tamit yoo xam ne dañ koy doxal. Mhm. muy chaque un mois. dañuy am benn tour boo xam ne moom la ñuy def. ki nga xam nga xam nga kenn ku nekk léeg-léeg ngaa génn sa kër ni maa ngi dem fenn. te say parents duñ xam ci looy dox. boo nee waa WhatsApp rek. mën fu ñu xalaatee. moo tax ñu def benn kii boo xam ne dañuy def chaque un mois. dañuy jox kenn ci groupe bi mu aaye tour su aaye <clears throat> bu ñëwee góor nattal ko jigéen nattal ko.

waaw tur bi dal ak bureau bi mom mu ci biir VIP. yooyu yëpp pour pour ñi nga xamni ne carrément ñoo tàggoo seen kër. Mm. te duñ xam seen parent duñ xam ci fan lañuy dem. Mm. moo tax loolu tam ñu doxal ko ci biir groupe bi. Mm. waaw comme noonu daal ma ma ko jëlee ci lañu macha allah kon nag lii rek jàngale la ci ñi nga xamante ni ñu ngi ubbi ay groupe whatsapp yaakaar ne whatsapp moom fo lañ ci war a def wala leneen ak leneen lii rek jàngale la ndax depuis bi ñu commencé waxtaan ba léegi macha allah lépp lu ñu waxtaan ci biir groupe bi rek dañ koy teg ci règlement teg ko ci euh, yoon loolu mooy euh, VIP family ñuy ñaan rek képp koo xamante ni yaa ngi tijji groupe ngay roy ci ñoom parce que def lu baax rek moo am solo comme ni ñu ko waxee mm. yaakaar naa nag euh, ni ma ko waxee woon léegi rek li ñu cërale woon ci waxtu mu ngi waaj a jeex lan mooy doon kàddu gu mujj gi. waaw kàddu gu mujj gi waaye di leen sant di leen gërëm vraiment di leen wax ni waaw VIP daal mi ngi VIP ñëpp la quoi la tout ngeen ñëw bokk ci xam mooy loolu xam ne ñëpp la fi nekkal quoi nekkul fi kenn doog. Mhm. Ah, waaw di mu ngi noonu ba maam Cheikh. waaw li ñuy tàggoo mooy benn damay remercier waa El ndax euh, seeral ñu benn yoon mm-hmm. depuis kii ba léegi ñu ne ñoom ñoo ko ànd euh, ñu def euh, avant koor gi ñu def ay yendu yoo xam ne carrément dañuy dem jël ndax sponsor xam ne dafa xaw a métti mm-hmm. dafa nga am loo ko won mm-hmm. waaw moom lu doy bëtam mu soog mën a jël produit am jox la waa mais boo ko defal loolu moom waa El jàpp ci bu baax a baax mu ànd ak ay xale yoo xam ne yu am fulla seen bopp yu mën a liggéey yu sawar ci seen liggéey

nekk si demal la di sama xarit sama mara japp na ci gu baakha baakha baakha a baax ak ñaanal yalla defal ko jamm ta barke fi tam ndof tamit japp na ci baakha baax wa teyf bass japp baas nañ ci bu baakha baakha baakha baax ci gudi wa seigne sëñ Fallou tamit ak sama xarit seigne sëñ Fallou def na ci bu baax de yep yep bis dal daal non ma sha allah kulim djum kulim djum lim juum ate <laughs> ya, prési waaw dañuy gërëm ñëpp rek comme ni ko maam Seex waxee eh. ñu gërëm ñëpp ñi nga xam ne jàppoon nañ ci yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen ñaanal. waaw rawatina nag waa El Vision comme ni ko sawaay waxee. El ñoom dañuy dañuy dañ leen di ñaanal rek. waaw yàlla ñu dem a dem a dem ba yor ay télé télé. ci barke yonent bi yàlla na ko yàlla def. ndax wax dëgg yàlla moom. liggéey bu rafet lañu liggéey ñun. te en plus ñun kontaan nañ trop si ñoom daal. acca mu ngi noonu mu nekkoon waa VIP family ñëwoon fii euh, tey ñu doon waxtaan ak ñoom ci guddi gi nga xamante ni moom la ñu organisé woon di guddi Seydouna Mohamed ñu di leen dox euh, ñu di leen dox euh, di daje may gërëm sama caméraman Serigne Saliou borom anniversaire bu neex bi nga xamante ni tey toj na fi macha allah ak Alaaji suñu DG maa ngi koy siyaar baax amaam décorateur maa ngi koy bëggee baax a baax Diom assistant maa ngi lay nuyu baax di la siyaar ak Ahmed assistant maa ngi lay nuyu baax a baax di gërëm waa El Vision Média ci kaw ci kanam ci baax jaa ngeen jëf